نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلم وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها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 laa xawfun alayhim fi dunya wala hum yahzanuuna fi l axira adduna ñan ñoo xam ne duñ fi am tiitaange ëllëg yowmal qiyaam duñ am jafe-jafe ak seen borom ñooñu ñaan ay jaam yàlla yi ñun yoo xam ne laa xawfun alayhim fi dunya adduna duñ fi am tiitaange duñu ragal lenn lu dul yàlla wala hum yahzanuun buñ demee àllaaxira ëllëg ñoom duñu am naqar duñu am mbetteel dajeeg seen borom mu dugal leen aljanna suñu borom subhaanahu wa wax ci alquran ci fukki teewaay ak benn ihda asara mawdian ci fukki aaya ak benn yu yàlla wax borom melokaan yooyu nga xam ne laa xawfun alayhim wala hum yahzanuun mu nekk sifatu sifatun lil ibaadi rabbaniyin al mu nekk ay melokaan melokaan yoo xam ne ay jaami yàlla ñoo ko mel waaye jaami yàlla yoo xamante ne yu gëm seen boroom lañ ñoom ñooñu nga xam ne ñoom ñoo am fukki melokaan yi ak benn ñooñu ñooñu lay wax ñooñu la ñuy wax ak rabbaani yéen ñi nga xam ne yàlla dong moo leen ñor yàlla dong moo moo leen moom lañ soxla woo mu nekk ay martaba yoo xam ne martaba yu rëy la ndax martaba bu kawe la mu jaadu na kenn ku nekk ci ñun nga xool sa bopp ndax yow ci ñooñu nga bokk wala bokkoo ci foofu mooy wax ci ndax melokaan la boo xam ne suñu borom subhanahu wa dafa wax ñu mel nii ay jëf yu ñuy jëf ay melokaan yu ñu am jaamu yàlla yu ñuy def moom moo leen yóbbu ñooñu ba ñu nekk laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun mbokk yi importance su xutba bi mooy nun ni toog julli si jumaa tey yàlla wërsëgal ñu nuy dégg lu mel nii fukki melokaan ak benn yoo xam ne yàlla nee na ñii laa xawfun alayhim wala hum yahzanuun kon lu jaadu mooy kenn ku nekk fa nga toog fi nga nekk nga laaj sa bopp ndax man ci ñii laa bokk wala bokkuma ci ndax man yor naa seeni melokaan ndax man jëf naa seeni jëf ndax nuróo naa ak ñoom su fekkente ne yàlla def na bokk nga ci yaa ngi ci yoon wi téyal mu dëgër su fekkee bokkoo ci soo fi nee bërët nga jóge fi nga fexe nga bokk ci ñooñu mbokk sunu borom subhanahu wa wax na ci juróom-benn aaya ci baqara suratul baqara am na juróom-benn aaya yoo xam ne sunu borom subhanahu wa ñoom la ko jagleel ba ca jiitu borom bi ne faman ittabaa hudaaya fala xawfun alayhim wala hum yahzanuun aya 38 ca Baqara faman ittabaa hudaaya fala xawfun alayhim wala hum yahzanuun lan mooy seen melokaan bu njëkk ñooñu mooy yàlla moo wàcce njubam ñu jàpp ci njubal yàlla yi yàlla wàcce alquran ñu jàpp ci njubal alquran kon alquran ku ci jàpp am nga benn melokaan ci melokaanu gaa yooyu nga xam ne laa xawfun alayhim wala hum yahzanuun ndax yàlla bi mu bindee aadama dugal ko aljanna génne ko dàq iblis yàlla li mu wax ak awa mooy dinaa leen wàcce ci kaw suuf wàcce sama njub fa man ittabaa hudaaya fala xawfun alayhim wala hum yahzanuun képp ku jàpp ci li ma indi man yàlla àdduna doo fi am tiitaange yowmal xiyaam àllaaxira doo fa am problème kon melokaan bu jëkk mooy ndax nun jàpp nañ ci jubal yàlla wala jàppuñ ci tey ci sunu jamono gis nañu njub yi bëri na ku nekk a ngi wax yoon bu nekk yaa ngi génne sa orientation wu nit jaar leen nii def leen lii wax leen lii gëm leen lii waaye maa ngi leen di wax ne képp ku wuuteeg njubal yàlla njub goo topp ak réer la yeneen bi alayhi salaatu wasalaam nee na man yonent bi li ma indi doomu mooy baaxal doomu aadama mooy njub moo tax mu ne képp koo ko fi bàyyi uti njub feneen da ngay moo tax xool leen yi xool leen yoon yi xool leen woote yi ñu ëpp ci ñu nekk ci woote yi dañoo sànku ndax nit bu toppee beneen woote bu wuuteeg woote yàlla sànku na ndax dootul jubati kon bu ñu bëggee jub bu fekkente ne njub doomu moo ñu borom bi nee na fa man ittabaa hudaaya képp ku topp sama njub fala xawfun alayhim wala hum yaxzanuun loolu mooy melokaan bu njëkk ñaareelu melokaan ci melokaanu gaaya man amana billahi wal yawmil axir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yaxzanuun ñaareelu melokaan mooy gëm yàlla man amana billah ndax yow mii gëm nga yàlla ñaareel ba mooy wal yow mil aaxir ñetteel wa amila saalihan deuxième aaya bi deuxième aaya bi ñetti melokaan la fa yàlla wax man amana billah wal yawmil aaxir wa amila saalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yaxzanuun ñetteel ñetteel mooy ñetti melokaan yi foog nga am ko boo buggee bokk ci ñi nga xam ne laa xawfun alayhim wala hum yaxsanun ñett yooyu melokaan ba ca njëkk mooy ndax gëm nga yàlla al imaanu billah jàng nañ ñun ñëpp arkaanul imaan arkaanul imaan ñaata la sitta juróom benn ba ca mooy al imaanu billah gëm yàlla tey soo li tax tey ñu am jafe-jafe ci sunu pas-pas ci sunu diine mooy boo nee al imaanu billah gëm yàlla nga gis ku toog ne la gëm naa yàlla tukku gëm nga yàlla waaw waaw gëm naa yàlla nit mënut a gëm lu mu xamul ku xamul yàlla doo gëm mënoo gëm yàlla lan mooy al imaanu billah ba nga gëm ko nasaraan yi waxee gëm ngeen yàlla ñu ne waaw yahudi yi boo waxee ñu ne waaw ñu ëpp ci doomu aadama yi soo leen waxee gëm ngeen yàlla ñu ne waaw ba ci ñun ñii di jullit ñu ci ëpp li ñuy wax mooy gëm nañ yàlla waaye yàlla moomu nan lañ ko gëmee loolu mooy suñu jafe-jafe imaanu billah kese dafa am ay tomb imaan juróom benn mbir islaam juróom ihsaan benn imaan xol bi mooy liggéeyal yàlla moo tax ngëm ci xol lay nekk yàlla ne rabbukum aalamu bi ma fi nufusikum yonent bi ne al imaanu maa waqara fi l qalb wa saddaqahu l amal al imaan mooy lu xol dëgg fas làmmiñ daal di koy wax cër yi daal di koy jëfe moo tax imaan ci xol lay nekk islam nag cër yi ñooy liggéeyal yàlla ihsaan iman bi ak ak islam bi bu àndee mooy li ngay def na rafet an taabud allah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraak al imaanu billah gëm yàlla kese yàlla dong mooy nekk ci xol bi leneen du fa nekk munoo gëm yàlla gëm leneen ak gëmoo bil bu neexee yàlla ak waaye boo la barke diw gëmoo wala nga tekk ba mu dëgër këcc kon gëmagoo yàlla imaanu billah nekkagul ci yow su iman bi nekkee ci yow kese kon yàlla rek moo fay nekk loolu mooy premier melokaan ci ngëm ñaareel ba wal yow mi aaxir mooy gëm àllaaxira waaw ah, boobu mooy suñu problème gëm nañu yàlla waaye gëmu nañu dinañ gëm àllaaxira ndax tey bu ñu leeroon ne dinañ gëm àllaaxira suñu melokaan dina changé bu ñu leeroon ne bis a ngi ñëw mooy bisu àllaaxira danañ daje borom bi kon suñu melokaan du mel nii tey du mel ba ca tegu mooy ku gëm yàlla gëm àllaaxira foog li ngay def nga baaxal ko mooy wa amila amalan salihan wa amila salihan foog nga def lu baax foog nga taxaw ci lu baax di ko wax di ko jëf di ko dox di ko def guddi ak bëccëg fu la gis ci lu baax ngay nekk kon ñaari aaya ngi nii allazina laa xawfun alayhim wa laa hum yaxzanuun ñeenti melokaan a ngi noonu ba ca tegu ci aaya ya mooy balaa man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala xawfun alayhi wala hum yahzanun jébbal sa bopp yàlla tey est-ce que ci yàlla lañ jébbalu chaque jour ñu dégg jébbalu moo wóor jébbaloo wóor jébbalu leen nangam nangam waaye jébbalu ci kan la wóor ci yàlla soo jébbalee sa bopp nit alal nga sa bopp loolu yàllaa ko wax balaa aha kay ki am jàmm àllaaxira yàlla mooy kan mu ne man aslama wajhahu lillah waxul diw waxul dem leen ci diw dane jébbal leen seen bopp yàlla lan mooy jébbalu mooy al istislaamu lillah mooy nga jël sa bopp taxañ ba mu mokk nga jox yàlla wala fi nee nañ ku ñuy diri doo taamu fu sa ndong bi jaar dañoo war a jox yàlla sunu bopp soo joxee yàlla sa bopp doo too xalaat sedd la wala tàng na wala neex wala sori wala metti na déedéet yàllaa ko wax def jeex na yàllaa lu neex nit loolu mooy al istislaamu lillah wal inqiyaadu lahu bi taa wommutu topp ko keneen Rabia da wax laytaka tarda wal anaamu xidaabu yàlla soo ku kon soo kontaanee ku mer affaire am la yow yàlla soo kontaanee ku mer affaire am la man li tax may may may def yow yàlla may pour nga kontaan loolu la Rabia daan wax yonent yàlla Moussa bi ko yàlla ne ñëw leen ma wax ak yéen ci montagne ba waa banu Israël yéex Moussa dafa waaxu dem fekk yàlla yàlla ne ko ana waa banu Israël lu tax xaaroo mu ne wa ajjaltu ilayka rabbi li tarda yàlla damaa yàkkamti ñëw pour man nga kontaan ci man tooguma fa di xaar bokk julit dafa jot jullit xam ne ci yàlla dong la war a jébbul yàlla la war a jox boppam yàlla la war a laxas boppam ba mu dëgër këcc jébbal ko tabaraka wa taala suñu borom loolu mooy ñaareelu melokaan ci istislaam al istislaamu lillah jébbalu ci yàlla wal inqiyaadu lahu bi taa nga wammutu ci moom ci topp ko wal baraatu min ashirk mooy nga bàyyi bokkaale naka ngay waxee ne gëm nga yàlla di ko bokkaale naka la jullit di taxawee ci kanamu yàlla nekk sàppe premier wala deuxième wala nekk ci biir jumaa ji ci biir sàppe si gaadaam doog ne allahu akbar yàlla yaay bu màgg gi fekk ci ndigg gi benn béjjén mu ngi fi wala ci dënnam benn pittaaw mu nga fa wala benn xaaw wala ci loxoom nday jor wala ci amoon benn lam mi ngi fa benn lam boo ko nee lam bi nag lala lam bi moomay aar ana yàlla ayna allah sallallahu alayhi wa sallam bi mu séenee waaja mu yor bàgg jaaru mu takk ko ci loxo bi yonent bi waabu ba ci moom jàpp jaaru or bi buddi bi boobu ko dindi ko de yonent bi moo ko dindil boppam buddi ko sànni waa ji ba mu siggee xool yonent bi yonent bi da mitta wa haza fi yadika ma aflahta abadan maa ngi giñ ci màggaayu borom bi boo jaaro bi nekk sa loxo doo dugg àjjana doo texe ndeysaan waaye loolu yëpp du problème xam nga lan mooy problème bi yonent bi wanee waa ji ginnaaw waa marché ba daal di ne waa ji yonent bi dem na jëlal sa jaaro mu ne leen yonent bi du tekki safara sama loxo ma koy takkaat du ñu tekki safara sama loxo ma koy takkaat ñun nag ñun nag allahu akbar benn waaye barki ne mu ngi nettali ci benn audio bu mu fekkee accident accident bu doy waar bu ci autoroute péage bi fajar nit ñaa ngi tëdd ku nekk ngi yuux ñii naa ne sama njaboot ñii ngi wax ku nekk mu ñëw fekk benn waaye boo xam kooku gën a sonn ci accident bi waa jaa ngi yuuxu mu ne ko tuddal yàlla tuddal yàlla waa ji tuddal yàlla boobu ñu mu bàyyi diw wax keneen allahu akbar xool yonent bi lu mu wax kuy dee kuy dee sa dernière kàddu nekk laa ilaha illa allah man maata man kaana axiru kalaamihi laa ilaha illa allah yonent bi daxalal janna nga nekk ci sukuraat nekk ci situation yu métti ñu ne la tuddal yàlla nga mer nga mer naan diw diw samba tuddal yàlla nga naan samba samba samba ba dee malaaka fekk la foofu ana lu samba mën ëllëg yow man qiyaamati ci kanamu yàlla ana lu mën ba léegi leeragul ci ñun ne kenn mënul dara yàlla dong moo mën ba léegi leeragul ci ñun ba léegi leeragul ci ñun ne ëllëg àllaaxira yàlla dong laa yatakallamuun illa man azina lahu rahman te kooku kat wa qaala sawaban yàlla nee na yowmal qiyaam bu ngeen dékkee ba taxaw sama wet kenn du wax laa yatakallamuun yàlla nee na ndare ku ma jox ndigal ne ko diw mu ne ama ah ne ko jógal wax te gis ngeen waa jooju muy wax yàlla mu ne waxaala sawaaban wax ju leer nañu ju ne cocc lay wax du dof dof lu leer nañu lay wax mooy allazina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillah summa laa yutbi'uuna maa anfaqu manan wala adan lahum ajruhum inda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yaxzanuun 262 ca Baxara ñii lan mooy seen melokaan mooy ñoom dañuy joxe seen alal ci yoonu yàlla allazina yunfiquna amwaalahum fan la ñuy joxe alal bi fii sabilillah joxewuñu ko ci làmb joxewuñu ko ci soirée joxewuñu ko ci joxewuñu ko ci joxewuñu ko ci ci lan lañ ko joxe fii sabilillah allazina yunfiquna amwaalahum waaye fii sabilillah seen alal yëpp yàlla rek yàlla dong mooy tax ñu dugal seen loxo seen poos génne joxe keneen mënul tax rek borom bi nee na ñii te la ñuy joxe kat duñ ci toppal wax bu ñaaw dañuy joxe ngir yàlla waaye léeg-léeg nga gis ku joxe ba pare naan waa ana li ma joxe woon nag fu ñu ko dugal waa mais kenn waxu ko ci rajo bi de te man joxe naa nangam dañ ko waroon wax ci rajo bi ndax man nangam man nangam yenn saa yi nga gis kuy joxe këyit yi da koy xëcc day xëcc ñeenti côté yi ba mu leer ne moo ngi nii de maa fi joxe yàlla dem na perte nga perte nga xaalis perte tiyaaba allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah summa la yutbiuna ma anfaqu manan wala adan duñ ci joxe waaye am waay dakkal nga ñu waaye am waay sonal ngeen ñu waaye yéen bis bu nekk rek laaj déedéet ñoom dañuy joxe fi sabilillah noppi duñ ci boole wax borom bi nee na ñooñu laa xawfun alayhim wala hum yahzanuun juróomeelu aaya allazina yunfiquna amwalahum billayli wannahar sirran wa alaniya falahum ajrum inda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yahzanun ñii ñoom dañuy joxe waaye guddeeg bëccëg allahu akbar doo leen fëgg guddi bañ ne tëdd naa doo ñëw bëccëg bañ ne sonn naa dañuy sees dañuy joxe guddi ak bëccëg yunfiquna amwalahum fi sirri ci secret wala alaniya ak lu feeñ lépp la ñuy joxe lu nëbb ak lu feeñ yëpp la joxe dañuy joxe guddi ak bëccëg bi lay li wan aa du ñu doo leen fëgg guddi ba ne tëdd nañ heure bii lu tax nga may fëgg nangam ak nangam déedéet doo ñëw bëccëg ba ñala aw ma temps danga ma waroon ñaan rendez-vous nangam ak nangam kër ci kër ci déedéet ñoom dañuy joxe guddi bëccëg ndax yàllaa tax mbokk yi juróomeelu aaya juróom-benneel inna allazina amanu wa amilu salihat wa aqaamu salaata wa aatu zakaat lahum ajruhum inda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yaxzanuun gis nga delluwaat na ca aaya bu njëkk ba inna allazina amanu wa amilu saalihaat waxoon na fa rek al imaanu billah wal yawmil axir wal amalu saalih ku bëgg a bokk ci ñooñu foog nga gëm yàlla inna allazina amanu gëm yàlla kese du mooy foog nga jaamu yàlla ki ngay def nga rafetal aaya alquraan yi saa yoo gisee imaan al imaanu wal amalu saalih jëf ju baax lay àndal inna allazina amanu wa amilu saalihaat illa allazina amanu wa amilu saalihaat ngëm jëf lay àndal Sénégal da gis ku gëm te du jëf boo waxee ñu ne gëm rek am solo ay julli yi ak ay koor yeeg yi sonal sa la soo gëmee yàlla rek doy na du dëgg day ànd jëf gëm day ànd ak wax day ànd ak jëf ñett yi mooy ngëm ngëm ci xol wax ko ci làmmiñ cër yi daal koy jëfe waaye gëm naa yàlla doo julli gëm naa yàlla doo woor gëm naa yàlla doo saraxe gëm naa yàlla doo jàng alquran gëm naa yàlla doo def benn geste bu baax yow daal sa ngëm yàlla yëpp ci sa làmmiñ la yem loolu du dëgg ngëm bu wéru la ngoog mel nii ñi am comportement yu mel nii ñi am sifaat yu mel nii ñii ñooy nga xam ne ëllëg fii ci àdduna du ñu ragal kenn àllaaxira yàlla nee na du ñu am problème ndax man lañ fay fekk man maay nekk seen xarit yàlla nañ ci yàlla boole aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim juróom ñaareelu suñu borom subhanahu wa taala nee na ci melokaanu gaa yooyu wala taxsabanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun farihina bima aatahum allahu min fadli wa yastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim min xalfihim ala xawfun alayhim wala hum yaxzanun ala imran 170 suñu borom nee na bokk na ci melokaan yooyu ñi am loolu mooy ñi ñu rey ci yoonu yàlla képp ku sëriñ ku ñu rey ci yoonu yàlla ak façon rey bi nu mu mun a mel dañ laa dóor bal dañ laa dóor jaasi dañ laa jam xeej dañ laa agressé dañ laa dañ laa dañ laa tëj ba nga dee borom bi nee na ñooñu bu leen yaakaar ne ñooñu dañoo dee déedéet ku ñu rey ci yoonu yàlla deewoo ñu ne yàlla ñooñu luy seen mbir mu ne bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun ña ngay dund ca yàlla ca yàlla leen di wërsëgal ndeysaan am na saxaaba boo xam ne dañoo rey baayam ñëpp wër ko ndeysaan ndax nee nañ baayam dafa xaru kenn la koo xam ne dafa song yéeféer yu bëri bëri ñu rey ko gars yi dafa xaru xamoon nañ ne bu demee day dee waa ji dégg loolu mu naqari ko mu ñëw ci yonent bi ne ko yonent dégg naa lu doy waar ñu ne ko lan mu ne gars yi sama baay dafa xaru lu tax parce que dafa song yéeféer yi moom kenn la ñu rey ko yonent bi sëgg ba ci yàgg daa ko sa baay de garab bi mu am ci yàlla kenn amu ko mu ne ko lan la sama baay am mu ne ko kenn musul faatu wala kenn yàlla musta wax ak moom face à face direct ku dul sa baay yonent yi sax li sa baay am yonent yi amuñu ndax yonent yi yàlla buy wax ak ñoom day yónni jibril mu ko yow sa baay nag yàlla daa wax ak moom face à face yàlla ne bàyyi sahaaba ba lan nga bëgg ma defal la ko xoolal yàlla jàkkaarloo nit ne ko waxal loo bëgg ma defal la ko allahu akbar tey bu doon kenn si ñun la fii yàlla fee ñu la ne la waxal loo bëgg ma defal la yow ko tóori daata mi waɗen ma ɗum joni joni ah! ay way sarsanam piti ko haa yow allahu akbar waxal loo bëgg ma defal la ron ñun fii tey ay 4x4 R bi daan ne yàlla damaa bëgg nga dekkilaat ma sama ruu ma jëlaat sama jaasi ma songaat gaaya allahu akbar ñooñu ñu toog nii ma faatu dekkilaat ma delloo ma sama ruu ma jëlaat sama jaasi dugaat ci xare bi xeexaat pour ñu reyaat ma yàlla ne ko waxoon naa ko ba pare innakum ilayha la taudun xanaa xamoo ne waxoon naa àdduna ku fa génn doo delluwaat te yow génn nga àdduna allahu akbar waxoon naa ku génn àdduna dootul dellu te yow génn nga àdduna pare waxal leneen mu ne man yàlla loolu rek laa bëgg nga dekkil ma ma demaat ma xeexaat allahu akbar xoolal yàlla kooku la fan la amee loolu ci dañ ko rey ci yoonu yàlla moo tax yàlla nee na bu leen yaakaar ni ñu ñu rey ci yoonu a dañoo dee deewuñu bal ahyaaun inda rabbihim yurzaquun yàlla ngi leen di wërsëgal yamu ci loolu bi ma aataahumullaahu min fadli ña ngay kontaan ci xéewal yeneen yàlla jox moo tax ka nekk suratu yaasin ba ko gaa ya reyee dégg ngeen yàlla dugal aljanna direct mu nekk aljanna di zibile di daw di yiw naan yaa layta qawmi ya'lamuuna bimaa ghafara li rabbi wa ja'alanii min al-mukramiin allahu akbar gaa yaakaaroon ne waa dee na jeex na moo tax bokk na ci ndofu yéeféer mu jàpp ne kii bu deewee jeex na déedéet jullit bu deewee jeexut de jullit bu deewee day continuer ci aljanna firdaws day dundiwaat beneen dund bu neex xam nga kan moo dee perte mooy ku gëmul yàlla ku gëmul yàlla mooy pet waaye jullit moo tax néewu jullit yi ku ci dugal bàmmeel malaaka yi fekk la fi nga tëdd fëgg la di la indil sa lekk ndékki wala añ wala reer li ngay njëkk a laaj malaaka yi moo waaye yéen yéen yéen malaaka yi kañ la yomal xiyaam malaaka yi ah ñun xamuñu ko de ngeen ne bu ngeen demee ngeen ne yàlla na rey nit ñi ñu dem àjjana sonn nañ fii toog fii rek di lekk ñun àjjana a dugg allahu akbar xoola bu dee yéeféen su malaaka yi ñëwee dañ naan malaaka yi kañ na yawmal qiyaam malaaka yi ne ah, wax dëgg yàlla ne bu yawmal qiyaam de bu ngeen yàlla bu mu jot mu ndax mu mbugal gi rek ëpp na yawmal qiyaam bu mu jot ñee dañ naan yawmal qiyaam na jot ñii naan yawmal qiyaam bu mu jot ñii dañ daan na jot parce que dañuy kontaan ñii ne bu mu jot parce que ci na ci naqar lañ nekk kon bokk jullit yi na ci melokaanu ñooñu yàlla nee na wa yastabshiruuna billazina lam yalhaqu bihim ñu ngi ca biir bàmmeel waaye ñoo ngi kontaan ndax xéewal yi leen yàlla di defal foofu huitième aaya ci ñooñu yàlla wax ne laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun borom bi nee na faman amana wa aslaha fala xawfun alayhim wala hum yaxzanuun 48 ci suratul an'am fa man aslaha képp ku yéwénal képp koo xam ne da doon yàq da doon def lu bon da julli da ngaa woor da ngaa bañoon julli da ngaa bañoon sunna da doon bokkaale nga bàyyi ko fa man aslaha képp ku yéwénal mu baaxalaat borom bi nee na ñooñu fala xawfun alayhim wala hum yaxzanuun moo tax doomu aadama bul nekk ci yàq rek bul béyk ci bokkaale rek bëgg cee bul nekk ci bidaa bëgg cee dee xamal ne li nga yàqoon démb soo paree tey pour jàkkaarloog yàlla pour tuub nga defaraat ko yàlla pare na pour ku pare pour tuub yàlla pare na pour moo tax foog ñuy bàyyi xel ne waruñoo sax ci mbon parce que dee day zaman wa anta talab imaam taqulu gadan nekk gis koo xam ne waaw kañ ngay tuub temps yi ci kanam tee ngaa tuub ba suuf sangam tee ngaa tuub ma ba pare ma def ci nangam ak nangam rek ma tuub wala bu ma demee màkk ba ñëw rek doog a bi lay wax kon fa man aslaha fa man amana wa aslaha képp ku gëm yàlla baaxal lim defoon soo amee iman ba pare la nga yàqoon nga defar ko borom bi nee na ñooñu fala xawfun alayhim wala hum yaxsanuun juróom-ñeenteelu aaya fa man wa aslah ku ragal defaraat ku ragal yàlla tuub defaraat li nga borom bi nee na fala xawfun alayhim wala hum kon iman wal amalu saalih gëm ak defar defar lan defar mooy guddi yi nga yàq bëccëg yi nga yàq ngoon yi nga yàq suba yi nga yàq waxtu yi nga yàq minute yi nga yàq heure yi nga yàq delluwaatal nga defar ko doomu aadama bu fekkee ñeen fukki at la war a fukki at fanweer yi mu mu ji war a am at yi fukk moo ko dese fukk yi mu tuub delluwaat ci yàlla defal fukk yooyu yàlla da koy nangal fukk yi baal ko fanweer yi bu waaye boo reppee ba yàq yëpp boo reppee yàq fanweer yi yàq fukk yi soo yàqee fukk yu mujj yi yàlla jugé la fukk yi jugé la fanweer yi passé yëpp nga perte ko kon doomu aadama bu mu sànk dundam bu sunu dund mbokk yi dañuy bàyyi xel suñu borom ay jaam lañ yoo xam ne yàllaa ñu sàkk ay minute la ñuy defloo ci kaw suuf lim ñu sàkkee wax nañu ko wa ma xalaqtul jinna wal ins illa illa li yabudun illa li yabudun loolu mooy aaya bi wa ma xalaqtul jinna wal ins illa li yabudun nit ak jinne indeewu ma leen ci kaw suuf lu dul lenn kese laa leen di doye mooy nañ ma jaamu mbokk jullit yi juróom-ñeenteelu aaya borom bi ne jalla jalaaluhu fukkeelu fukkeelu aaya ala inna awliya allah laa xawfun alayhim wala hum yaxsanun gis nga ba ñu defee juróom-ñeenti fukkeelu aaya ba ba mu ñëwee lu mu wax léegi ñoo xam ne iman rek lañ am waaye ay xaritu yàlla lañ léegi nekk nañ xaritu yàlla ala inna awliya allah yàlla nee na sama xarit yi xoolal yàlla di ndamoo ay nit nit ñii samay xarit lañ mbokk yi président de la république su waxoon kenn tey mu génn ci télé wala ci rajo mu wax ay tur mu ne ñii samay xarit lañ la la ñuy xalaat ci ñooñu dama a di laaj ñooñu lu ñuy xalaat ci ñooñu tey benn xalifa général ci suñu xalifa yii su waxoon léegi ne diw ak diw ak diw sama xarit lañ lu ñuy xalaat ci ñooñu tal ne yàlla mu ne ala inna awliya allah sama xarit yi ñu ah, yàlla ñooy ñan sa xarit yi mu ne ñooñu laa xawfun alayhim wala hum yahzanun même ñooñu nga xam ne dañoo nekk xarit yàlla suñu faatoo yàlla mooy yor seen yëpp inna allazina qaalu rabbuna allah ñu ne yàllaay sama borom summa staqaamu ñu taxaw jub xott yàlla mu ne falaa xawfun alayhim wala hum yahzanun allahu akbar inna allazina rabbuna allah ñu ne yàlla ñun amul keneen keneen suñu yoon nekk ci yow yàlla rek su mastaqaamu ñu jub jaar ci yoon woowu jub xocc jàdduñu yàlla fii ci àdduna du ñu tiit même bu ñu deewee seen doom yi ñu bàyyi ginnaaw du ñu tiit wala xawfun alayhim wala hum yaxzanuun àllaaxira gën a ñu jëm suñu duggee bàmmeel du ñu tiit lu tax parce que yàlla moo fa nekk yàlla moo leen di xaar parce que yàlla nee na ñooñu samay xarit lañ mbokk jullit yi fukkeelu aaya ak benn mooy aaya boobu ma wax léegi inna allazina rabbuna allah summa staqaamu fala xawfun alayhim wala hum yaxzanuun ma nga nekk ahqaaf aaya 13 kon fukki melokaan ak benn ngi nii fukki jëf ngi nii fukki mbir a ngi nii ak benn yoo xam ne ku ko def yàlla nee na ñii ñooy samay xarit ñii ñooy awliya allah waliyu da ngay dégg fii Sénégal na ci tax ñu alku mooy dafa am ay baat yoo xam ne dañ ñu koy naxee kenn duñu ko firi waliyu kenn du ko firi ci Sénégal muqaddam cheikh shérif sarif yooyu kenn du ko firi te ñàkk koo firi naxaate la ndax buñ la nee diw waliyu la dangay yaakaar ne su ma toogee moom lu muy xalaat sax xam na ko lu may xalaat xam na boo toogee moom doo taalal say tànk boo toogee moom doo sol mbax ne boo toogee moom doo wax boo toogee moom doo ko xool ci suuf rek ngay lu tax kam ko dee koo waliyu xam mooy waliyu dañ ko waroon wax nit ñi ndax yàlla mun a nekk waliyu seytaane nekk waliyu nga nekk waliyu ñetti waliyu ci benn munu nekk yàlla nee na man waliyu la seytaane waliyu la nit waliyu la kon waliyu lu muy tàkki yàlla waliyu la yàlla moo ko wax allahu waliyu lazina amanu ሰይጣን ወልዩ ነው። ወለዚነ ከፈሩ አውልያኡም ጣሁት የው ወልዩ ነው ኛቲሙኑ ነ ወልዩ ሞይ waliyu mooy ku moom dara kër gi kan moo ko moom borom kër gi borom kër gi mooy waliyu kër gi waliyu mooy ku jiite dara yàlla nee na ñi gëm yàlla maay seen waliyu maay man lañ aliyeel man lañ faral man maay seen farandoo loolu mooy waliyu jeex na tuuku waaye danga dégg sëñ bi wala yu wala yu la de moytu leen de jiital la ba nga tiit yaa ngi dem na moom wala yu la nga yaakaar ne moom fekk seytaane wala yu la kon wala yu du leen yàlla nee na yéeféer yi seytaane mooy seen wala yu ndax moo farak ñoom wala yu mooy ku farak dara nga bàyyi boobu nga ñëw ci cheikh cheikh diw cheikh léeg-léeg sax ci suñu mbokk yi ngay nuyu ne ko cheikh bi muy ngànd ngàndul cheikh mooy màgget cheikh mooy màgget tout court mooy màgget léegi nag bu ñu la nee cheikh loo ci ngand ngandul ñu ne la màgget loo ci ngand ngandul ah beneen bi mooy sirif mooy bu bon bi sirif des fois ñu ne jumaa ji dañoo am sirif bu fi ñëw mooy ku bon sharif lañ war a wax sharif mooy ku ndax kulu wasarabu wala tusrifu inna allaha la yuhibbul musrifin lekk leen naan leen bu leen yàq sirif mooy yàqkat kon bu ñu nee kii sirif la ngay ngand ngandulu mooy kii yàqkat la haza sirif mooy kii yàqkat la dañoo am sirif moo tax gis nga même jàng am importance xoolal ku war a wax mu ne sirif sharif lan mooy sharif mooy ku baax waaw léegi kan moo nangoo bon moo tax baat yi dañ ñu ciy nax beneen ba ca a dangereux nag mooy alhadi mooy cadeau da ngay ne dañuy joxe sunu addiya addiya mooy kado mooy alhadi kon baat yi du lenn lu dul dañ ko war a dégg ñu xam lu muy tekki ba duñ ñu ci nax ndax joxe nga sa hadiyu nga yaakaar ne ngaa war a rey sa bopp mooy kado kado nag ku koy joxe duñ la forcer kado yaay toog ba mu neex la nga ne man kat diw bëgg ko jox kado mu kon ci yow nga ne jël jox ko waaye kado bu ñuy forcer nit la du diine mu laa budda an mu axar su fekkee am na ñu ñu jiital am na ñu ñu def ndaare kan mooy nangu nekk ci ndaare ba kon baat yi bokk jullit yi nañ ci bàyyi xel li am importance mooy ci ñun kenn ku nekk nga jéem a mel kaa yi ndax ëllëg jalla jalaaloo suñu borom daal day gërëm yor ay salaatul xaayib suñu président Mouhamed Mursi am nañ mbokk yuy laaj lan moo tax ñuy jullee Mursi loolu bu ñu paree julli incha allah balaa ba bu ñuy julli salaatul xaayib boobu dinaa wax lan moo tax ñuy jullee Muhammad muy allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma axarna wa ma asrarna wa ma asrafna wa ma anta alamu bi minna anta almuqaddimu wa anta almuaxiru laa ilaha illa ant allahumma ya haadi ihdina sirata almustaqim sirata alladina anamta alayhim min annabiyin wa siddiqina wa suhadaa wa salihin غير المغضوب عليهم ولا الضالين